ba ci dimbale nit dimbale nit lu mu sawaroon di def la te da koy dimbale ngir yàlla ak jëmi sëñ Tuubaa li ma leen ciy jox tegtal de taarixu jumaa ji yéen ñëpp xam ngeen ko loolu la sëñ Tuubaa santaane woon sëñ Modou Moussa tàmbali ko wante Cheikh Mouhamadul Fadilu eggale ko àggale ko ci 1963 ñu julli ko ak jumaa ji ni mu ñore woon sëriñ bi waaye bi sëriñ Abdou Lahad ñëwee fexewaat na ba ñi nga xam ne ñoo judduwaat gannaaw bi ñoom ñëpp seen ñaq demaat na ci jumaa waaw loolu di du rëy du am solo ndax jumaa ji bi mu ko yokkee ci jumaa ji la bokk te ku sa ñaq demul ci bee dem na ci bii mu di defaat defaat fi yeneen liggéey sëriñ tubaa yoo xam ne bu ci ne da daan taxaw ni kat daa fas yéene moom diirub lim fii lim fii nekk Serigne Touba la fas yéene liggéeyal fas yéene lu mu am def ko ca te ku ko joxit mu defal la ko ci te noonu it la ko daan doxe doxale ndax maa ngi bokkoon ne ca daara ji ñu ngi nii ci déwén sa ñu yokkaat ko mu def ko def naa fukki daara ak ñett waaye loolu lépp ngir bëggoon a liggéeyal sëñ Touba ak bëgg ñaqu ñëpp dem ci liggéeyal sëñ Touba bu ñu bayee ba àggal ba ñu peese ko ba noppi ñu ñëw ne ko nangam la nangami million la mu daal di ne kon da koy daal def ci liggéeyu sëriñ bi daal di woote tàmbali loola daane ku lu waaye indi ma defal la ko ci ñu ne ca loola ba mu ne kaay leen nu ubbi loolu nu doon liggéeyal sëñ Touba hmm? ci yokk jumaa ji ci kër sëñ Tuubaa ba ci daaray kaamil ak yeneen ak yeneen yu mel ne yëpp mu def ko liggéey sëñ Tuubaa fexe nag te semence bi nga bu yàgg doo nga leen judd ñun ñëpp suñ ñàkk dem ci kon kooku bëgg dimbali nit ak mën a labiri mun te weesu loolu yaakaar naa ni quatre-vingt-cinq noo ngi bay gerte gi lépp dix mille tonnes trois cent tonnes la fukki junni bërigo ak ñetti junni bërigo te santaane ah, wunu woon lu daay nag kese yorunu tracteur yorunu dara ah. loolee yëpp noonu la ko defee moom ci ci liggéeyam Sëñ Tuubaa bi nekk fi loola nekk fi loola nekk fi loola ndeysaan ba ni mu demee àjjana waaw waaw waaw moom la ñi mu bokkal Sëñ Tuubaa yaakaar naa ne dina jàpp woon Sëñ Tuubaa rek waaw ndax bi ma fàttalikoo am na tóoru dugub yu nu yoo xam ni suñ Moodu Aminta Fall mais moo ko bojj si woon bañ ko bojjee ba àggal danoo daal di woo defal nu bis nu fab ñaar téeméeri bërigo yët sëñ Abdou Xaadir ñaar téeméeri bërigo yët sëñ Saaliwu fab ñaar téeméeri fab ñaar téeméeri bërigo yëpp ci sëñ son yi def naa ñi nga xam ni doomi sëriñ bi yu jigéen lañu woon boo ñëwee mu topp leen ku ne seen toon seen toon waa kër soxna moom yeeg waa kër yooyu yëpp seen toon noonu la def tool ba mu mat leneen la ca des nag te te diggam ak ñoom it ci wàllu dund yi kooku Ibra Gaye ko yore woon xam naa kenn ku ci nekk defe naa ni la daan nekk sa kër ci ceeb daana leen ko jox yeneen ya koy jagalit daana leen ko jox waaye na loolu bugguma caa wax ndax ñeneen la ko seqaloon waaye lii ma leeroon daal nga xam ne maag doomi siñ mu demin Fall ñi ñuy wax Assane Fall noo doon fab di ko doon di ko yóbbu loolu moom leer na ma nañ su ma soñoon lu ma ciy waxit noonu lay deme ak itam nag ñu di ko gane si suñ Abdou Khadir li ceeb bu ma saan ñëw da gaaw la fay ñëw dibéer altine talaata atal ba alxames ah, mu doo ko yeewu mu dem ndax xam nga jumaa jee taxoon waaye bu ma saa néew bi mu ko dalal buy dem lépp la ko naan na demaale addi sëñ Tuubaa lal yaag fauteuil yaag tapis yaag yëpp da ko naan addi sëñ Tuubaa na dem waaw daayira am na bu nekkoon njaareem ñu daan indi ay ay salaat ay xeet yi mbayum noor yooyu daayira ba bu masaan ñëw loolu leen daal séddal leen ko juróomi cër kër sëñ Tuubaa kër kër waa kër sëñ Tuubaa yi gu ci ne yóbbu ci bi nga xamee ni dimaas ji fi mujj te Baara Njaay jóge ci moom sekk ma ca tool ya ne ma sëriñ bi nee na boo wàccee nga ñëw boo Baara Njaay mi ngi yor ay kees yi fur wi yoo xam ne da ko doon yëtloo waa kër sëñ Tuubaa koo séddale woon na ko yëpp bii sëñ Abdou Khadre bii sëñ Sall bii sëñ sëñ Sooy ah mu ko séddalee loola it boobu lii ma la baar baar ñëw ne ma sëriñ bi nee kon bu boo wàccee nga ñëw ci timis maa ñëwee lan toog ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan ba na ma ñaanalee ma ñibbi bi quatre heures jotee laajtu bi mii di jàng wolofal yi ñëw ni ma kaayu yi sëñ bi ma defee ne mbirum tool yi lay waxtaan ak man ma ñëw fekk sa sëñ Sooy ndekete booba bi ma ñëwee ma toog suñ sooy waxul dara mu woo ma ak sëñ laat mosam mii mu toog toog ba yàgg ma sama xel dalul ma engage nag tuuti sëñ sooy bu nekk ko ah waaw sëriñ bi lu xew mu ne ma daal dañoo ñëwoon ne ma sëriñ bi xaw ma daam lu ko daan xaw ma tension la xaw ma ay ñaan ya ma yoroon yëpp toppatoo naa ko ba ba jël ko ndeysaan ñëw waaye bi ma ak rek fekk naa sunu borom def ca dogal waaw fekk nun timis ji ba gee yëpp mi ko toog di ko waxtaan ak man waaw lu ca bari xam naa la nga xam ne ni waxoon na ko de ba mu toogee ne man de Sëñ Tuubaa laa fas yéene nekkal xam naa ni adduna moom lu mu amati ci man da koo sàcc te su ma ko dabee danaa ko ba jot ko nangu ci la fi woon ci la fi nekke ba ni mu mu fekkee Sëñ Tuubaa waaw loolu biir na ñii ma ko bokkaloon nekk yépp waaw hmm. ñooñu de daanañ fi ñëw ku ci ñëw mu ganale la ganale gu rëy rëy gu ñuy coow waaye day wax ko diwluma ci leen lu du won leen sëñ Tuubaa rek laa ci jublu nga ne liggéey rëy rëy nee loolu la ci jublu moom ci boppam it daan toog ba yàgg mu dem fekki leen bi ci bi ma ci mujjee fàttali mu dem fekk sëñ Abdou Assis yi ba mu ci jógee gannaaw bi la fi Seex Tijaan ñëw fii dañ euh, dafa dem ay numaa bi maanaam si yëpp rek si daal di woo ñoom Cheikh Tidiane ak signor yi ñëpp ñëw fa suñ fa dajee ba yend ko gan ba ca ngoon kenn ku ne jël micro bi di wax ñii di taarif ay way ñii di def lépp di def dafa def ba ba fab bi nag yët ko moom <laughs> mu nuyu leen gërëm leen ne leen nag ma daal dama bëgg a féetewoo jëf te bañ a féetewoo wax <laughs> loolu loolu laa di wax rek moom waaw. waaw. kon ñoom it eh, diggam ak ñoom. la ca waroon lépp lépp lépp def na ko. ca maslaaga gaak ak lépp wan leen këy sëñ Tuuba ak lépp. waaw ndax xam ngeen ne bi fi ne kenn yebul yoonu Tuuba yoonu murit. kenn yoo yëbul leen ku ca wax nga wax loo xam. même ñi bokk ci murit gi ñu mën a doon kenn ku ci ne booy wax da ko bàyyi xel séddu ko ah wala lu ko lu ko defee moom dana ko lijjanti waaw daawul tàngal nu dara lu mat a ku ku ku ku ñemoon responsabilité daal ci li nga xam ne moom la ko yàlla suñ tubaay dénkoon bu rëy la ci ne ko sàmm ko ba ni ni leen fekk ñoom ñoo ñëwee moom yàlla suñ tubaay nga ko dimbale ci làmmiñ nga xam ne ku ma doon ku dee dalay ruus ba boo defee mbir bu dana ay waay yow bi muy bett nga ma ci lii nangam nangam loolu xalaatu xalaatutoo mukk bu ba dina tukki nga defati ah, loolu yàlla may ñii mën nañ ma ci seede ba ko ne tuut tuut tam bu jooyee ñëw ne ko kéema jooy la woon a nangam nangam ay tin leen ma ci gone yi gone yi lu mu tuut tuut tuut jëmmi bàyyam la fi taxawee lu gone ko tuut bu dee juróom-ñaari at mu jooy jooyee métti na ko lool te bu sañoon kenn du ko defati ndax nañ la fii ne day yéen waaye man ne moom day euh, jëmi bàyyam la fi taxawee te nit de bu da tuddee doom waxati waaye mu yëkkati ko jox la ko moom wàcc na yow yaa des loolu daana ko wax defe naa ne am déet yéen ñi woon ci daara ji defe naa dégg ngeen loolu ba tey loolu de xam nga moom ba mu toogee biir ba dégg ci lu mu ci wut a dégg lu mu ci buggutoon a dégg loo xam ne xam ne ni jaaduwul ci lëkk la daa di bind ci kayitam yii ah signaloo ko waa Kër Sëñ Tuubaa ku ci daa waaxu ba fa yow mun la signal ku fi defate sàngara wala nga defati fi carte wala nga defati nangam nangam ñu jëflante ko ak yow ba na pee di ko nag dëkk bu Sëñ bi man sama laa ci gar ndax ko fekk ba pare bëgg ko ko nangu loolu daana ko wax waaw tarbiya nag moo nekkoon fee moom ca mu Mouride waaye ñaare alxuraan yi ku mu bëggaan def nga def ko da dafa indi la kër Sëñ Soñ wala ñu yóbbu la fu mel suñu kër sëñ Asa si googe wala sëñ doomam ji ñuy wax sëñ jiili xibaar nañ ñu bari moom daan na ko jox ñu ñu ñu yoree njàngale meeg yooyu waaw waaw waaye fee moom lu ci ëppoon tërbiya baa fa ne woon waaw Darou Salaam barke gi 1945 la ko sëñ Mourou Moussa joxoon ah nekk be quatre euh, euh, soixante huit bi sëriñ Fallou demee soixante neuf la fa delluwaat fab ko nag jox ko sëñ Sidi mais mu yore ko boobaak léegi moom mu desee Touba bi rek ndax dani ginnaaw léegi euh, léegi sëñ Touba la te day bari ñu koy soxla loolu mun a dem fu sori ah di sonal nit ñi nga def na nekk fii mu gën a jege ba moo tax booba jamono booba nag li ëpp ci daara mbay ji moom fii la féete waaye la ko jiitu amoon ay daara yeneen daana bay mbaraan gi daana bay waaye na bayti ja ay kër ma xujja ay yu bare bare moom nag a jekk daal ba mu ba mu ba mu waaw daaray kaamil moom sëñ Tuubaa la fa doon defar këru kaamil ndax defe naa ni sëñ Tuubaa jamono bi nga xamee ni jàng na ba noppi defe naa dafa waxoon sëñ Amsatu mu woo fa mu ñëw fa ba mu ñëwee defe naa ni te na ma euh, déggee yëkkati woon ab kaamil jox ko waaw ne ko Abdou kët mayuma la kaamil bi dama la koy lebal. loolu la ko wax. xam naa mooy ba mu demee dema dema dem ba xelam dem ca la mu fas ko yéene fay këru kaamil bii waaw loolu moo la doon fay ca kaamil boobee boo ko joxoon waaw sëñ Moustapha bi si fi woon doxoon diggam ak ñooñee ak kañ kañ wax Karim Fall ah diggante woowu yi ceeb ñoo ko daan dox ak a def yi xam nga it dañuy a doy waar di dugg ci luñ la duggalowul tax ba nu dem loo ca daara ñu ñu yem ca daara ja rek même ministre bi nga xam ne dalaa yor mbirum mbay mi suñu ma nee dana fi ñëw ñu ñëw ñu war a ànd moom wëri tool ya dama ñëw tubaab bi la xaar ku mu ñëw na ànd ak ministre bi bu ñu àndee wër a wër a wër a wër tool yi ba mu wër ba taxaw ba laaj li muy laaj ba ñu jël si waat ba tubaabeleel ñu dugg ñoom ci biir ñu di leen berndeel man wëlbatiku naa man dellu ca tool yi wala ma dellu sama kër lenn de ma sama koo wax te yaakaar naa ni loolu ci fu mel noonu rek la war a mën a bawoo ak takkusaan nu toog fee ca tubaabe leen maag moom xam naa boobu ñu naan wala tastawil xasana xasanatu wala sayyiatu idfa' la ndax na ma ko waxee daani ma nit de bu nekkee ki ay noonam ay fexe ba wet ga gën a rafet moom na koy won noonu buñ ko xamal geneen wet gu safaanoom kon mooy idfaa billatii hiya ahsan ah waaw ah. isante si bay na ka wo bay na wax daal waaw ah. mu ma noonu noonu wax waaye dama na waaye nag la ma wax dafa jafe ndax ne wa maa yulaqqaahaa illaa llaziina sabaroo borom mu muñ dee ko manam wa maa yulaqqaahaa illaa zuu hazzin aziim ak borom kii waaw ah. man ci saa wàllu bopp xanaa jiital passif rek hmm? njëkk borom màggal gi mu sëñ Abdou Lahad sédd ko wàllam liñ koy njëkk a séddale jox ko addiya alquran li waay man jox ko ko ci xasida yi jox ko ko ci salaatu ala nabi jox ko ko ci istixfaar yi lu waay man door a ñëwal sa bopp nag boo ñëwee loo mën kii berndeel ak nit def ko ngir yàlla ak moom da nga noonu la ma ne woon a defal gan nga fas ko yéene defal ganam yi ndax ñu ñëw ay ay ganam la ndax ñoo tax mu ñëw waaw su ko defee nga fas ci la nga ci bëgg rek su ko defee la nga ca fas incha allahu da ko gis ñu góor góorgóorlu rek te saa bu ne bu nu xëyee bu ne nun ñu ko yaakaar ak yéen ñi ñu ko tuddee kenn ku ne boo xëyee jëlal jëmm ji ne cëpp ci sa kanam ah, la nga xam ne boo jàkkaarloo woon moom moom ngay def nga góorgóorlu ca loola la nga xam ne boo jàkkaarloo woon moom doo ko def bu sa xel xalaat waaw yàlla ñu ca yàlla ak sëñ jàppale nag ci barkeem ak baaxaayam eh, ak liggéeyal ba mu liggéeyal sëñ Tuubaa lépp sëñ Tuubaa fay ko ko waaw te nun itam mu taxawuñu ci waaw barkeem xam nga man sama ndey bàyyam ma surum la tuddoon taalibe la woon nag ndax moom la sëñ Modou Moussa toppatoo toppatoo loo woon léegi eh, kii jumaa ji këyit yi dégg nga mu nekkoon ca Ndar sëñ bi jël sama ndey indi ko taxal ma ci dara tey sëñ Touba ji kon kooku lu ma am sëñ Abdu Lahat ah lu ñu ma defal ngir sëñ Touba sëñ Abdu Lahat yàlla dogale ma dem a dem ba gisatuma ko it ginnaaw sëñ si di moo ko fi loolee dama koy mottali ci moom waaw loolu day moonu boole. neen jëmi Sëñ Abdou Lahad laa ko jàpp fas yéene ànd ak moom la ma daan dégg Sëñ Abdou Lahad rek waaw ñaan yàlla yàggal ko fi lool waaw yàlla yàggal ko fi bu baax a baax a baax yàggal nu fi ci ginnaawam waaw ci barke baayam bu baax bi barke maam yu baax bi suñu waay yéen ñi yàlla àggale seen i yéene sëñ Tuubaa may leen wér te boole ci xéewal yoo xam ne sëñ Tuubaa rek la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek la ko dem